Aminata Lô Dieng nekkoon fi ministre si jamonoy Abdoulaye Wade jamono ji ma ngi ci guddi gu bët setagul ndax ma ngi ci loxol yoona gendarmerie bu Wakaam ñoo ko teg loxo guddik alxamis jàpp ajjuma li ko waral bokk na si ñàkk respecté li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi waaye nag ginnaaw bi ñu ko jàppee ci guddik alxamis jàpp ajjuma bi ñu xëyee dañu ko daal di bàyyi mu féex waaye nag moom Aminata Lô Dieng ancien ministre bi dafa daal di dellu siwaat ci gendarmerie bu Wakaam bu ñu sukkandikoo nag ci ay xibaar kàddu yi nga xamante ni jokkalante na ko ak gendarmerie ba pare yàq leen musiba ak mbelengaan ak kàddu yi nga xam ne tamit daan na koy jagleel njiitu réew mi di président Macky Sall loole bokk na si li tax ñu daal di koy tegaat loxo ba pare daal di koy la ñàkk worma ki nga xam ne ab agent de l'État la nekk ci ab liggéeyam waaye tamit yëkkati kàddu yu ñàkk worma teg ko ci derub njiitu réew mi ñu jàpp sax ne Aminata Lô Dieng moomee dafa def offense au chef de l'État moom la ñu koy toppee te soo moytuwulee nag niki suba ci altine ji danañu ko daal di defeere maanaam dina daal di jano ak procureur ci biir loolu nag Serigne Modou sa jeng mi nga xamante ni moom mooy coordonnateur confédération internationale des familles religieuses moom nag ma ngi sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall ñu bañ a jël Aminata Lô Dieng di ko yóbbu sa kaso ba ndax sax jamonoy woppi coronavirus lu may loolu sax moom Serigne Modou Bousso Dieng daal di wax ne Aminata Lô Dieng ancienne ministre la woon ba pare nekk chef de partie nekk leader d'opinion kon war nañoo moytu nag di ko jël di yóbbu sa kaso ba Serigne Modou Bousso Dieng jàpp fi démocratie toll war nañoo dépasser nag jël nit naan dañu koy làq jant bi ci lu jëm ci offense au chef de l'État li am ba des mooy Aminata Lô Dieng mi nga xam ne nekkoon na fi ministre jamonoy Abdoulaye wadd ma ngi ci guddi gu bët seetagul ndax ma ngi ci loxool gendre gendarmerie bu ni niki suba ci altine ji soo moytuwulee dina jano ak procureur te soo moytuwulee sax moom Aminata Lô Dieng bu amul sens dëgg-dëgg dinañu ko làq jant bi